baara booy baara booy ba bëgg def ci moom moom dana wax ngeen kay ngeen waay xale baa ngi doon ñu rek ñëw ne oo fii de Oye, ¿qué